waaw dama bi ma yéegee fii ma ne leen ma bi ma yéegee fii depuis ñu ni Nabou Leye génn na génnul tout ça ma ne leen bu ngeen bëggee xam lu leer dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la temps mu ngi ci biti kaw Aziz Dabala bi da ngeen di toog ba mu yàgg ñu ne leen diw génn na da ngeen di toog yàgg ñu ne leen justice nee na juge bi nee na lii ak lii ak lii da ngeen ni toog ba mu yàgg da ngeen di toog ba mu yàgg ngeen dégg ñu naan leen soxna soosu noonu ñi si doon tudd lii lañ ko téye woon waaye nekkut ci problème mu kaa bi déglu leen bu baax li ma leen di wax ma jox jox leen xel bi nga xam ne moom la ko gaay programme man du ma waxantu te lu may wax sama loxo laa ko téye bu leen dara bett ne bés de jot ñu ne leen Nabou Leye li taxoon ñu téye ko dañ ko téye woon pour sécuriser ko pour bañoon gaay ñu daal ci kaw déglu leen bu baax li ma leen di wax panel bi nag neexutoo waxee. parce que parfois dégg-dégg day jafe waaye buleen leen bu leen dara bett ci loolu man nag maa leen ko wax te li ma leen wax lu ma xam la dama leen di xamal ne xeex bi nekkul ñu nekk Sénégal kese ñoo si xeex de. Hmm. waaw waaw am na ñoo borom deri ñuul lañ dekk senegal ba pare seen vi nekkut ñu ngi nekk senegal ta ay kilifa lañ waye ñu ngi ci kaw kenn ku ne da nga am côté boy taxaw di centré di passanté lu neex ci problème si ci problème mu kay mo wax len lu leer la len di wax ndax ben affaire bi xam nga lan la hmm. gaay yi dañoo bokku menn mbuus te mbuus gi dañ ko tak kon ku njëkk génn rek mooy yàq nga ko kon nu ngeen mën a organiser ba des ci biir noonu ngeen di def te gars yi loolu moo leen dal ki leen jaaxaloon nag mooy seen doom bi nga xam ne moom lañ téewoon dana wax wala du wax mais ñenn ci ñoom sax am nañ lu leen bett ci na Leye jàppoon nañ ne jour biñ ko njëkkee tey boobu la ñuy wax moo tax ma xamal leen na leen ñenn ci ñoom tuddoon naa leen fii lan moo waral seen xaalis ñemewuñ muy des Sénégal. ñenn ci ñoom ñi nga xam ne dañoo bokk ci nu koy abaadi waxee kuréel boobu lan moo waral seen xaalis nanguwuñ muy des Sénégal parce que ñoom jàpp nañ ne ñoom jàpp nañ ne ñoom toujours rek man parce que ci erreur lañ nekk quoi xam nga erreur boo ci nekkee rek da ngay programme de da ngay nag moo gën faju am naa benn amoon naa beneen question parce que man le fait que famille Boubacar Gano. waaw mooy waal yi. ñoom ñoom le fait que kenn déggu leen si wax ji maanaam dañoo toog rek def tekk xam nga. maanaam mhm. kenn déggu leen si dara daal affaire boobu tamit xawoon na ma jaaxal daal man. du man maay wax tey question bu ma nit posé bu ma question bu ma nit posé su ma ko xamee rek dinaa la ci tontu lu leer naññ tey du man maay wax mm, gor yàlla. gis nga problème boobu noonu waa famille mhm. famille famille famille euh, l'autre là Wally waaw waaw mhm. côté boobu noonu kaay ma wax leen ci dara pour ngeen mun a bàyyiwaat seen xel damay am ku ma dégg léegi sax mu ne famille Aziz Dabala nañ jege famille Wally kaay ma wax leen benn mbir ngeen mun koo comprendre waxuma ña nekk Kolda ñooñu ay rakam ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk yaay ak papa mais ma wax len ben mbir mako wax te fi la ko waxe te dama assumer sumay responsabilité mako wax moy ñi nga xamne ño bokk ak wali te nek Dakar keroog bi wali génnee aduna ban jox len koor bi ñu denc ko keroog lañ ci paré ci sayr nak ak ci batin ambassadeur oui oui maa ngi koy ok zo vas-y. dégg nga loolu wala. nañu ko ñun ñëpp. voilà te léegi nag noonu rek la demee xam nga. xam nga xam nga lan moo waral rumeur waaw. Hmm. soo paree waaw waaw boo pare ma laaj dama la pare. ok man kay instant yow laay déglu. xam nga man moom damay nekk di xalaat di use sama mind rek loo xam ne na daf maa daf ma yàgg a soge si problème bi quoi boobu ba léegi tamit ma siy xalaat parce que man man famille Waly si man li à un moment donné man li ma jàpp quoi man dama jàpp ni famille Waly dañ leen jaxase ak famille Aziz Dabala ci communication pour pour ñu gëm gëmloo leen ni yaa may dégg a ce que comme li ñu dëkkoon génnee ci ay kàddu yu ñaaw teg si kaw deru Aziz Dabala si moment wu meurtre bi comme loolu lañ gëmloo ni te Aziz Dabala li la doon defloo seen doom est-ce que yaa may dégg pour mu leen hmm. divertir pour mun leen jaxase léegi li lay li lay am na fu am na fu am na fu faay boobu jógee mooy mooy n'est-ce pas jour deewu Aziz Dabala jour jour jour bi hmm. jour crime ñoom Aziz Dabala bi ah yaa may dégg hmm. xam nga magi Aziz Dabala raxu Aziz Dabala mu ngi foofu ah, ah. yaa may dégg. waaw waaw maa ngi lay dégg. Mhm. ma ne Rokh Rokh Aziz Dabala mu ngi foofu Nabou Leye mu ngi foofu mbay Seck mu ngi foofu ñoom Ndeye Gueye bëri na ñu fa nekk nest mhm. kon kon kon kaddu kaddu waali jarbaatam la fan la jóge fan la jóge te te te te Magu Aziz Dabala nekk fa Rokh Aziz Dabala nekk ba kaddu boobu fan la jógee parce que kaddu boobu kaddu jarbaatam la li gën a li gën a naqari famille Wally loolu si la bokk information boobu te information boobu jógewul ci membre famille Aziz Dabala. ok léegi mën naa laa tontu foofu noonu. waaw waaw. bàyyi ma tontu la nga jàll comme question yi day xaw bari léegi ma wax benn mbir yow sénégalais nga du xam nga sénégalais ni muy doxee. ku tolloog fa sa tonto maanaam taxawaay waxuñu at rek may nay ànd ak moom rek kooku onkul nga koy woowee ku tolloog sa sa yaay kooku yaay nga koy woowee ku tolloog sa papa nga di ko woowee papa Sénégal yàgg ngaa gis xale bu tax nit rek def ko xarit nga ànd ak moom dox kii sa lan la non kii sama doom la sans mu wax la ne la carrément lan moo waral sama doom bi dula expliquer lepp ki sa lan la sama jarbat la sa mu expliquer la lan mo waral mune la sama jarbat la lolou mu ngi senegal bari na fa ñepp xam nañ ko amna ño xamne dañu ne nekk ci kër bañ japp ne fi foofu lañ dëkk dila wowe santu sax borom kër gi te yow da nga ñëwoon étranger rek pour dem liggéey ñëw te lolou yow tamit dang koy nangu xam nga loolu lu ko waral complexe ñun dañoo complexe gis nga lu ma la yaayoo yaayoo sama yaay bi ma jur bis boo ñëwee nga ne ma kii sa yaay la dinaa la leeralal ban yaay la ci man waaye sama yaay bi ma jur non non non non boobu boobu du ma ko du nit ba tax ma fàtte boobu même bu génnee àdduna sama papa la même chose ki bokk ak sama yaay tamit noonu. bu dama la bëgg doomo tamit dina leral askan bi dina leral nit yi lan mo tax ma doomo la même bo ma taxé même bu ma la yar xamoo sa benn famille dina la wax nan nga ñëwé ci man loolu amna fofu lañ jàppee ñu né bo waxé ñu né la doomu Aziz tabala bi jarbaatam bi bi bi bi amna ñu bari biñ xamé wali daal la dëkk mooy bi mu bi bi bi sëb bi amee dama xamal la beneen côté tamit si foofu pël ma wax la ci dara est ce que xam nga pël yi dañoo bari mais dafa am ay xeet Fëlkunda dafa am Tukulóor dafa am Pël Fuuta am Pël Waalo am kaay ma wax la pël ñoo man comme façon bu mel nii. ñi ñu doon pël te di xam nañ li may wax sa caméra gis nga ñu doon pël di dégg lii may wax ak tooroodo waaw loolu dafa am ñu doon pël te dégg lii may wax xam nañ lii may wax pël yi ma leen di tuddal nii pël moo gën a bëri xeet ci Sénégal gis nga yan pël ñoo man façon xeex bii nga xam ne bu ñu rayee seen mbokk maanaam gis nga genn golo gis nga nu mu guddee waaye lu mu gudd gudd gudd gudd cat ba loo ci laal mu yëg ko mooy pël waalo waalo waalo wallaahi bu doon ñoom la li lay wax ni lu leer la kaay rek may expliqué la bu doon ñoom la képp ku ci bokk da ngay génn di waxtu barke alxuraan comme xaj bu say noonu ngay mel xaj bu sayee dootul xamee borom da ngay génn di waxtu par la force ñu xam pël yi may wax xam nañ leen Fëlëkunda nag kaay ma wax la lu mu man mooy côté ay Kolda yooyu noonu fële Fëlëkunda yi gis nga bu fekkee ne dangaa ñëw ak ñoom ci xuloo wàllu xëccoo ay famille xëccoo déglu bu baax li ma lay wax xëccoo yow léegi ñu léeg ñu ñu ñu ñu ñu épargne la nga dem ca àll ba dootoo leen sax bëgg a jege dootoo leen sax bëgg a jege dootoo leen sax bëgg jege pël yooyu loolu looloo waral na gis nga ñii nii ñoom seen problème am nañ seen koor lijjanti nañ ko ba pare ñenn ñoo ci mënoon a topp bu ma bàyyee xel nee nañ am na ay rak te xam nga